te mu il est investi. Mmh. dans les a, mais voilà donc loolu lay wax maintenant ay kan la seeg yooyu noonu c'est benn sax ça ça devient une coalition loolu mooy benn. Mm-hmm. deuxièmement mm-hmm. lu ma wax du dañ. aujourd'hui il y a des gens qui étaient dans la coalition Diomaye président qui n'ont pas fait de liste et qui les soutiennent. Mm-hmm. à commencer par Guirassy. Abdourahmane Diouf. Malick Gakou Malick Gakou Aminata Touré. Oui. ak ñoo xam ne investir ñu ren sax mais soutenir leen donc aujourd'hui ak ñoo xam ne feneen lañ jóge tey jii demal Kolda Pastef fañ Kolda. ñan ñoo nekk ñan ñoo nekk di assurer mobilisation Kolda plus les Pastefiens yu fa nekk c' est Mame Boye Diao et Abdourahmane ak six ah, maires yoo xam ne ak ils sont de la localité dont sama benn xarit bu ñuy wax le maire de de de Mampatim ñu koy wax Nafaya. Hmm. ils ont tous rejoint Pastef. kon nag kan nag voilà. Euh, Bachir ils ont raison parce que. parce que doole ah la transhumance ils ont rejoint ak nu ngeen ko mën a tuddee. Alioune Badara uh-huh. euh, Bachir est un journaliste. Bachir est un rétrécien. Euh, non non non non non non frère non non non la transhumance est une coalition nous savons tous ce que veut dire une coalition. vous êtes dans la sémantique. une coalition Alioune Badara. Mm-hmm. muy ñun ñeent te ñu taxaw. ñu ànd signé benn charte ànd ci coalition quand un parti décide d'aller aux élections mu waxtaan ak nit ne leen ku ñëw da ngay dëppoo ak charte ñu teg suñu parti ce n'est plus une coalition c'est sous les couleurs du parti on n'est pas en coalition nous sommes allés aux élections en tant que le parti l'unique le PASTEF créé janvier 2014 et actuellement les gens qui décident volontairement de rejoindre PASTEF mais qui décide après appel. non après appel. waaw Bachir tu vois tu peux avoir une toi tu peux avoir peut-être un des cas boo xamante ni nga ni. loolu am na ci sa ci yow. mais gis nañ gis nañ El Malick Ndiaye dem ci Aly Ngouille Ndiaye waxtaan ak moom en privé. mais El Malick ay ñooñam génn. mais El il est dans le Jolof. mais ah, aujourd'hui loolu yëpp transhumance la tey tey gis nañ ko mu dem seeti Aliou Aliou Dia waaw Aliou Dia aussi Aliou ñëw na. moom tam mais c'est la transhumance. non xoolal transhumance mooy tey yow nga taxaw déclaré ma jóge naa fi ma nekkoon rejoindre naa mais nga taxaw def déclaration ni man maa ngi woo samay militants ñu votel Pastef quand même. non mais maanaam mooy du ma lekk si yàpp mais naan naan si ñax mi quoi loolu lay tekki de li nga wax nii. non non non non non parce que loolu mooy mooy naa rejoindre et voter. j'appelle mes militants à voter Pastef ak je rejoins le nañu waxante dëgg. c'est totalement différent. et aussi encore une fois nous on l'a dit et on l'a redit. le Pastef kenn ubbilul kenn buntu pour nga ñëw fi comme dem ak barke dem mënuñ ko doon defee. nga xamante ni yow bu ñu la naree topp ci dara da ngay ne xaaral ma daw dem lakkatu ci biir parti au pouvoir. pour que ëllëg bu dara amee xam nga mais c'est pas une question c'est une constance donc là moi je termine sur cette question là actuellement nous on ne reçoit pas de transhumants et on on n'est pas en train de démarcher des transhumants des gens pour que ñoom ñu ñëw maanaam transhumer suñu parti maintenant nag les personnes qui de façon bénévole di jóg di faire appel à leurs militants pour que ñu ñëw votel Pastef mais c'est tout bon vent. ak li ñu leen daan mën a wax Kolda nag Kolda euh, le maire Maguette Diallo maître Malick Sall ak un, <coughs> un ancien parce que euh, voilà après la fac. xam nga voilà mais euh, tey tey euh, le PASTEF avait déjà consolidé ñun depuis présidentielle ba ñu fa accès fekk leen fa. Hmm. ils avaient dit que booy ci pël rek on a tampiné ko moo bu leen sonal seen bopp bu leen sonal seen bopp. puis laa ko képp dem njaxee tagoo Ousmane Sonko ko di <laughs> Sénégal. maanaam dem leen ngeen jàppale gars yi parce que déjà da fi perte essence da fi perte temps naaj bi daa tàng. ñun ñu jàpp suñu jàpp rek. Mm. nekk suñuy porte à porte dañoo dox te Kumbakara à Médina Yoro Foulah en faisant l' du Fuladu en commençant par son département lui Vélingara on a une campagne boo xamante ni elle était exhaustive amul fu ñu bàyyi amul ko bu ñu bàyyi man en tant que quelqu'un qui est né à Kolda ci affaire moo nekkal primaire. dans un village qui se trouve sur la route nationale Thiara. Mhm. à quelques six kilomètres de Témoldo. Mhm. tu euh, am na zone yu ma demoon village yu ma demoon même le village de Capitaine Touré Bassum mosuma foon teg sama tànk sama ay cawal lawo ay ba nu ngi dugg doon ba dugg Bata ba bi euh, Mif bi jaar yoon boobu pour génn génn Kolda mais c'est des zones yoo xamante ne on les a fait et quand les résultats sont sortis à la présidentielle c'était une fierté donc aujourd'hui on a déjà cons une base ñenn ñi ñu ñëw dañ leen di duma ñu ñàkk ñu dañ leen di duma. Ah, mais mënoon ngeen bañ a jël Malick Sall nag. Malick Sall ak lim leen fi wax yëpp ngeen nangul ko Malick Sall maître Malick Sall. non ak lim ah, leen fi wax yëpp boo nee ak ah. Massa lu mu lu mu leen wax boo ko yóbboo waaw ah wax na fi Ousmane waaw ci xalpulaar ak ci lu ngay nga daan dégg ñu daan déclaré. waaw que ne Ousmane Sonko personne dangereuse pour Sénégal. oui tey bu ñu rejoindre Pastef day xaw a ñaaw tamit. Malick Sall dafa rejoindre Pastef. Malick Sall de dafa woo ay militants pour ñu voter. parce que mais c'est pareil non déedéet Bachir mais de jouer sur les mots lu ngeen def nii c'est de la sémantique. yow les yow les mots yow sur les mots c'est toi non non non la sémantique lu ngeen def nii. sur les mots pendant dix ans. quel mot non tu as joué sur les mots pendant dix le mot sur lequel j'ai joué. tu as joué sur les mots pendant dix ans. Ah donne-moi un mot sur lequel j'ai joué. tu as joué sur les mots pendant dix ans. les mots sur lesquels ah, euh, euh, ma. Euh, Atepa Goudiaby et Mimi Touré sont les sergents recruteurs de Pastef. Oui. c'est pas des mots, c'est des affirmations. désolé. Mais c'est des affirmations gratuit. parce que vous n'avez pas des preuves. C'est-à-dire Samuel. Oui. Bu ne samay preuves doyu Mais bu vous n'avez pas de preuves. Non, vous n'avez pas de preuves. Non non non non soyez non vous en disant que que Atepa Goudiaby et Mimi Touré sont des sergents recruteurs pour Pastef. Alors que le

te nag je pense que war war war non non mais c'est du français j'ai beaucoup de respect pour vous mais si vous aviez du respect c'est-à-dire que libre à vous de information gratuite mooy yow da ngay wax loo xam ne amul preuve mais mais mooy da ngay fen non non non mais loolu lay tekk bu m'accuser moo tax ma ne non non faut faire la différence da ngay fen ak amoo ci preuve mais dama ne li ngay wax mënoo ci indi ay preuve mënoo indi ay preuve ne indi preuve dafay weesu may la nit woonam mënoo indi ay preuve ne indi preuve day weesu nit woonam mënoo indi ay preuve ne Pierre Atepa Goudiaby bi ak Mimi Touré ce sont les agents recruteurs de Pastef mënoo indi preuve ne. mën naa la wax sax moo woo euh, tey nga xamante ni mooy. mooy mooy maire Mbacke xam ne mën naa la wax sax nit koo xam ne. ba muy wax ak Ousmane Sonko. Mm. ci téléphone Atepa la waxee. waaw mais loolu c'est. kon nag c'est-à-dire que Atepa moo ko mu ne ko hey xam nga lu ma bëgg nga jàppale Ousmane Sonko am wuy ko. kon lu ma lay wax xoolal ci télé laa toog. Atepa n'est pas interdit de faire ça. je n'ai pas dit que c'est interdit mon frère. non mais non c'est j'ai pas dit que c'est interdit. oui j'ai dit simplement. Mm. une chose. Mm. aujourd'hui si si toi tu veux jouer sur la sémantique en disant que nit ñi ñoo ñëw dugguñu Pastef dañuy voter Pastef. tu es en train de faire de la sémantique et de la. sémantique waxuma loolu dama ne. aujourd'hui mais mais mais mais le fait laa lay wax. mais mais dama ne li ma wax dafa simple. Mhm. c'est une chose tout simple dama ne. Mhm. Mhm. Pastef n'est pas en parti seul aux élections c'est une coalition qui est partie sous le nom d'un parti politique benn kon parce que on a investi des gens qui ne sont pas de Pastef. c'est pas moi moom moo ko wax ñun ñëpp ñoo ko constaté ñaar ma ne ñii nga xam ne dañoo dem élection présidentielle wala jàppoon coalition Diomaye donte la am na ñoo xam ne amuñu sax investi dans Pastef ils ont demandé à voter Pastef après ma ne la ñett nag maintenant aujourd'hui Pastef mu ngi dem recruter ay nit mm-hmm. recrutement boobu noonu transhumance la mais la aujourd'hui Aminata Touré est en train de jouer au sergent recruteur pour Pastef avec Atepa Goudiaby parce que les maires yoo xam ne man j'en connais plein ñoo xam ne xam naa comment on les a démarchés pour ñu ñëw jàppale euh, Sonko voilà tout ce que je dis j'ai pas dit que c'est mauvais j'ai pas dit que Atepa n'a le droit de le faire encore une fois mm -hmm. mon propos n'est pas là-bas c'est le constat je suis dans le fait mhm. je suis dans le constat maintenant si constat parce que tey jii nii lu ma lay wax mën bu ñu génnee hors antenne ma wan la ci preuve parce que dafa am loo xam ne nit mënu la ko wax dans le secret nga toog fii di ko dettali. non mais mais mais yaa ngi wax la li ma la wax que li ma la wax bu ma la bu waxoon mën naa la wax leneen lu raw loolu. mais dama la yem si nii. am na xam ne man gëwuma ne Ousmane Sonko dina dem si tu ma di Sénégal si tu ma di gëwuma ko si tu ma di ñëw jàppale ko si ma di gëwuma ko gëm naa nag nit ku si tu ma di bëgg a démarché pour gis Ousmane Sonko si di gëwuma ko nit ku mu bëgg a démarché pour mu bëgg a dem jàppale Ousmane Sonko si di loolu naa ko gëm si di Ousmane Sonko jóg jël téléphone am woo nit pour mu jàppale ko un ancien maire wala un ancien koo xam dafa nekk benn bokk yaakaar man personnellement man gëmuma ko si tu me dis voilà voilà mm-hmm. Mm-hmm. gëwuma ko je peux te le mm-hmm. mais c'est des affirmations gratuites je pense que ça n'est de non là moom je maintiens mes propos vous êtes en train de faire des affirmations gratuites sémantique des mots yow yaa koy def parce que moi je pense que ne président Ousmane Sonko soxla na lenn lu dul dem di taxaw di woote ay nit naa leen ay kaay jàppale ma koo xamante ni def na watal leen président Diomaye ñu fal ñu votel ko à 54 virgule 28 pour cent mu ñëw taxaw tey ne sénégalais yi man mi leen doon wax votel leen ab euh, euh, Barthélémy Dias man mi leen doon wax votel leen euh, comment dirais je waa ji nekk fële. ji. Ah, man mi leen doon wax leen Abba Saint-Louis. Ah. pour ngeen gagné tey man moomu maa soxla pour ngeen votel ma kon donc imaginez lan la Sénégal yi di def nee naa la opposition bi bu ñu yéexee dix député duñ ko am ndax tey jii ka daan fale moo paxaw ne fal leen ma tey sénégalais yi doon ñu donné l' écrasante majorité loolu man maa la ko wax. Bassir nag est en train de de de faire des affirmations grandiloquentes. mais mais non non non Sadio yaa ngi insister nag et je voudrais pas vraiment. Samuel nag suñu débat bi un sergent recruteur. je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé je suis je voudrais vraiment pas que débat bi nga def nii. war waroo ma ko def et je te le dis. on n'est pas dans on n'est pas dans une truc am na loo xam ne par respect aux gens qui me regardent. et qui te mais da wax loo xam ne indiwoon ci preuve. waaw mais déedéet boo boo xam ne ah, Ousmane ci preuve. wax ci preuve nag c'est des affirmations gratuites. je je suis désolé dama ne d'accord cest à que vraiment je voudrais qu'on se respecte. Ousmane Sonko ñàkkul. grand non wuy ma je voudrais qu'on se respecte. tey jii. je voudrais ñëw wii ko mu laaj xaalis ñu jox ko prix de 700 millions. kooku ñàkk ñu ko ko def ba muy tàggatoo je voudrais qu'on se respecte je mais je suis d'accord. mais dire que gëwuma ko ak li ngay wax ay fen la c'est différent. non non affirmation gratuite. mooy li ngay wax mënoo ci indi preuve. arrêtez ça non non affirmation gratuite mooy li ngay wax mënoo ci indi preuve. fen yow yow j'ai pas à vous le prouver parce que bu ma amoon pour prouver la ko yow dama la koy won mais j'ai pas à vous le mais li ngay wax. mais aussi j'ai à le que tamit man maa toogal fii. parce que tey donc quand vous dites démentir ça veut dire que mooy damay fenn donc je pense que. tamit vous doo doo mës a dégg ma woo. non non non démentir. je ne le dirai pas mentir et démentir c'est du français. non non li ngay def nii vous êtes en train de manipuler. mentir et démentir c'est du français. du ma saaga du ma saaga ci plateau bi. non mentir et démentir c'est du français. léegi léegi comme yow moo bi utiliser bëgg ko quand euh, nañ bàyyi noonu rek. ok d'accord parce que xam nga Euh, pour ñu parce que débat bi nag sànq ba tey mu ngi neex gars yi ñu ngi ñu ngi am euh, ñu ngi déglu bu baax a baax ak li xew. mais c'est nag man Alioune Badara man je suis un peu tamit surpris nag ci ci réaction Bachir ah. je